a jànkonteel défi sécuritaire yi ci jamono bi nga xamante ne ñoo ngi nemmeeku bu baax yokkute li ñu duppee criminalité transnationale Interpol nag am ci solo lool te di fagagal yooyu le mbir. à travers son système de communication sécurisé. ak li nga xam ne mooy xeetu euh, jumtukaayu xal yi nga xam ne moom lay daal di jëfandikoo ci wàllum kaaraange ak données yi nga xam ne am na ko ak li nga xamante mooy wàllum programme am Interpol day tax rek service yëpp yi nga xam ne ñooy appliqué wàllum loi ci weccantey euh, information ci wàllum crime day tax mu interpellé nit ñi nga xam ne daal ñoom la ñuy seet wala ñoo xam ne kat ay agent lañu ci euh, jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci directeur police nationale bureau central national Interpol bu mim réew nag takk na rip ci élan coopération policière internationale yi lu mu namm nag moo di gën a yokk liggéey bi nga xamante ne moo ngi ko ci indi dooleel service yépp yu nekk ci réew mi di ci liggéey loolee ngir ñi mun a faagaagal jafe-jafe bi nga xamante ne nekk na ci xeex mbirum criminalité. Par un large déploiement de ces outils et services, beaucoup de dossiers internes waaw ci déploiement boo nga xam ne moo am ci ay jumtukaay ci ay service ay duna dossiers yu bëree bëri yoo xam ne fii wala sax ci bitim réew yooyu jot nañ ko daal di saafara ci lëkkaloo gun lëkkaloo autorité judiciaire yi nga xam ne kat ñooy liggéey ak ñoom ak tekk jër yi nga xam ne ñoo ca jokk rawatina waa gendarmerie nationale waa police ak waa douane. Il y a plusieurs services également dans d'autres donc dans BCN Interpol juróom-ñaari fan ci weeru novembre fële ca Vienne la juddoo Sénégal nag bokk ci ci atum 1963 di ci lëkkaloo ak police yu àdduna wërngal këpp yépp ngir kaaraange askan wi waaye directeur bu police nationale moom ñàkkul di woo service application yi liggéey ci yoon teewee bile ndaje ñu yokk seen taxawaay ngir li ñuy xeex gën a sotti